ràññee woon na ni xëy na néewoon na fa doole. Mhm. fexe na ba jubbantikoo ci diggante bi. Mhm. Ah, bu ci mel ni dakaar moo ci gën a nag nekk mandarga surtout. parce que gis nañ Dakar li fi xew yëpp. Dakar euh, dañ yaakaaroon ni xëy na ak njabootu xalifa Sall wala ñi nga xam ni léegoog nañu Khalifa Sall ci wàllu politique. Mhm. dina jafe moom mu gañe ko waaye gis nañ li fi xew ci diggante bi. Euh, ay ñoo xam ni ñu ngi woon ci xalifa ëlbatiku dem ci kawam. xëy na sax looloo waral lii am Dakar. ba nga xam ni ba fi euh, ku jéggi lim fi yaakaaroon amu ko fi. Mhm. waaw loolu moom feeñ na ci élection yi. Uh-huh. Euh, leneen leneen li feeñ xëy na bokk na ci ay ñoo xamante ni tur yi ñooy gën a peese ci balance bi que mbooloo mi. ay nit yaakaar naa ko nag loolu itam feeñ na. Hmm. man li ma jàpp mooy même Idrissa Seck euh, lii nga xam ni tukkee na ci bañ gàcce yi te mu am ko du loo xam ni mbooloo la bu mu liggéey moom ci boppam moom ko. dama jàpp ni li ko waral mooy surtout concours de circonstance bi am nga xam ni ci candidat yi nga xam ni nekkoon nañ candidat à la candidature. Hmm. am na ci fukk ak juróom-ñaar yu ñëw fekk si ko. Euh, tey jii bu fekkee ginnaaw Macky Sall mi nga xam ne gañe na defaraat ndëgër laayam booy def yeneen jàngat ci ñeneen ñaar ñi ko topp. Hmm. dama jàpp ni man mbooloo Ousmane Sonko moo gën a am ndëgër laay sax que mbooloo sa Seck mi ñëw ñaareelu position. Euh, euh, Momar da ngay des ci waxtaan wi le temps ñu waxtaan ak euh, Habib Sy directeur de campagne Madické Niang mi nga xam ni un virgule nangam la am ci élection yi Habib Sy ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay waaw ci <laughs> Babacar Fall la ak El Hadj Assane Gueye Abdoulaye Cissé ñu ngi lay ziar monsieur le ministre. seen jàngat ci résultat yi yéen waa Madické 2019. <coughs> waa dégg nañ ko comme ni ngeen ko déggee te tey ci suba ñun ñi nga xam ne ñoo bokk coalition bi wax am na lu ñu waxtaan ci téléphone ba wax ne ma dikkee li nga xam ne mooy euh, déclaration bi nga xam ne opposition bi mu ngi ko doon signé pour ñaan ñu processus électoral bi li ci amoon ba moo tax résultat yu mel ni am mu signé ko li ci def nag comme ñun dañ ko bokk coalition lañu Euh, tey danañ am réunion incha ci ngoon. Mhm. xaj na buñ ca génnee dana am loo xam ne ni moom la ñu wax sénégalais yi man koo dégg. Mhm. bo boo nee ñun doo c'est au-delà de votre coalition euh, Idy 2019 la wala waa waa Madické. waa waa Madické yi ñoom. Ah, waa mm. Madické yi moom mm. moom de mais déjà li ma li ma mën a wax rek mooy. Mm. Euh, coalition bi ba fii ñu toll mi ngi ancré wu ci opposition bi. Mhm. mais résultat yi amagu ci njàngat yéen. waaw dañuy xaar ba njàngat bi mooy li rek. mooy déclaration bi nga xam ne tey opposition def na ko suñ candidat signé ko. Mhm. mooy li ma la wax parce que boo gisee résultat yu mel nii. dafa fekk ne ma nga ma nga ma nga rëqee woon ca njëlbeen nga boob ba léegi. Mhm. yaakaar nañ ne loolu opposition doon ko ŋàññ xëy na ñu bëri dégluwuñ leen ba ñu agsi fii loolu def naa moo jur résultat yu mel nii. Mhm. monsieur le ministre euh, xam nga da nga wax ba ñu yegg si fii ci gi moo nekkoon bésub wote bi bésub sànni carte ñuy wàññi xob yi nekk ci biir kees gi. Mm. est-ce que seen njàngat mën ngeen koo tënk rek ci bës bi seen i nit yi ngeen woo pour ñu woteel leen finalement résultat bi toll ci un quarante huit pour le candidat Madické Niang euh, le candidat Macky Sall am cinquante huit pour cent ak lu teg jàll au premier tour njàngat bi bu ñu ko doon tënk rek ci bésub wote bi. mën loolu tim xam nga ni loolu war a tey xel la. Hmm. parce que euh, élection li ñu koy xayma bari na mooy nit ñi ñu ko amee ne moom la toppee candidat yi meeting yi ñuy defar ak caravane yeeg ngay dégg ci rajo yeeg nekk ci réseaux sociaux yi yooyu mën na nekk premier xayma euh, boo ko gisee nag ñu ñëw na la yow li nga liggéeyoon un pour cent nga am wala un virgule cinq nangam pour cent. Macky Sall rawee ki nga xam ne moo jiite ci opposition bi lu mat ay vingt huit pour cent. Hmm. loolu dafay tey xel. Hmm. donc lu jar a gëstu la. Hmm. te incha allah danañ ko def te taxawaay bi ci war a taxaw yëpp. fi ngeen koy wéer xanaa ci seen seen ndaw yi leen teewaloon dañ dafa am ay réserve yu ñu émettre ay ay ay rëq-rëq yu ñu gis ñoom. waaw am na yoo xam ne xam nañ ko signalé. moom danañ gis moom tey incha allah ki nga xam ne moo ñu fa toogaloon. ci région bi bu ñu ci ngoon gi danañ defal compte rendu ba lépp leer suñu bopp. très bien sànq Mimi Touré mu ngi junj éventuel gisewaat waxtaan dialogue ak yooyu ngir ëllëg da ngeen naan lan yéen. xam nga man man daal man bon loolu danañ ci waxtaan ak laaj Assane am naa ci xalaat. <laughs> mais plus tard quoi. kooku <laughs> naa di ci wax démb sax. mais daal li ma mën a jàpp rek. Mhm. mooy nation Sénégal nation bi. ci boppam moo jiitu lépp. Mhm. te yi am na yoo xam ne wane na ko te bu ñu deful ndànk. Hmm. am na loo xam ne mën na ndërmeelu. Hmm. ci li nga xam ne moo doon ponk yu tey Sénégal. dëgg la te loolu nag képp kuy homme politique. Hmm. ak loo mën a doon. war nga ci taxaw ba loolu bañ a am. très bien. man bu ñu ba ci kanam incha allah dinaa ci génne war sama xalaat. Ah. monsieur le ministre Habib Sy juste avant de vous quitter euh, en français quelle est la réaction. de la coalition Madiké 2019 à la suite de la publication des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes qui consacre Macky Sall élu dès le premier tour. Ben, notre première réaction dans, dans, la mesure a eu une concertation par la coalition et autorisation a été donnée à, au candidat Madikenya de signer la déclaration de l'opposition qui a dénoncé euh, tout le processus électoral euh, qui a occasionné ces résultats auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui quand même consacre euh, un écart euh, que l'on ne peut pas a priori justifier

une euh, nga jégal ñu rek monsieur le ministre dañuy dellu ci seen naatangooy opposition bi fële ca ca Idi 2019. Euh, Nafisatou merci merci monsieur ministre. Euh, Nafisatou. waaw waaw Assane. lu lu fa am ci xibaar. waaw naa du yàgg